dajale tey mooy di sant yàlla woon fi nit ñi parce que bu ñu amee lu baax dañ ko woon waa Pekes ñun suñu xëyam suñu gont ci mooy lu defar Pekes kii yàlla dana boole ñu ànd tukki mu xamal na lu bari di jàppale collectivité locale yi mu ànd ak partenaire bi Fousia mu diriger benn école euh, internationale ci l'enseignement supérieur au Maroc comme Pekes am na lycée dana bëgg suba wala ginnaaw suba élèves bi Pekes dem jànge ji Maroc partenariat boobu taxaw ci police locale yu bëri tey jii boo xoolee y a les maires qui viennent du Fouta les maires qui viennent du l'intérieur donc lu ñu bëgg ñëpp waaw ñëpp bokk ci parce que lu baax ñëpp dañ koy séddoo comme nag jigéen ñi aussi mën nañu sula développer réew mi te ànduloo ci jigéen ñi moo tax nu woo leen tey dañ indi ñoom leen xalaat jox moom am li xalaat nu tënk ko di ko saytu nag jëmale réew mi kan. te gis nañu ne daanaka jafe-jafe yi euh, li ci gën bari jigéen ñoo koy a jànkoonte. Mhm. Mhm. ban taxawaay ngeen ci am ak yan genre xeetu projet ngeen lañu financé. waaw très bëgg mooy dootuñu dugal euh, nan ma baal yenn xeetu projet yi xam ne dañ lay lebal fukki junni pour loolu loolu baaxul dañuy xool ñoom ci li ñuy yëngu nan lañ leen ci mën a fekk pour accompagner leen parce nit ki doo ko dugal ci euh, ci ay ay ay ay bor parce que ku xam na ni Kajoor réew mi tabarkàlla kon boo ko dugal ci bor fa koy fekk man na ko bañ a matukaay mais boo fekkee ci li muy yëngu nga fekk ko ca lan moo si jafe-jafe lan moo ci sa tënk fan nga ci yem man maa la apporté pour nga avancer bàyyi ko boppam di ko encadré nag parce que mënuñu suñu leen a jàppale pare bàyyi leen. parce que kii moom xam na si dara looloo tax mu indi ko fi pour won ko waa Pekes li muy def ci réew mi di ko def ci adduna bi man ni naa ko këj indi ko Pekes pour mu defal ko waa Pekes ndax soxla nañ ko aajo woon nañ ko te attention peut-être euh, jigéen ñu bari mais maison familiale rurale du Sénégal fii moo nekkoon base bi kon dafa def ay formation boobu ñu ngi nelaw kon bu leen yeewaatee lu bari dañ ko soxla ñoom seen bopp il faut nu yeewaat ko indiwaat ko. mettre en en œuvre jàppale leen ci encadrer leen pour suivre ko mu jëm ci kanam. réseau rapide muy réseau boo xam ne dañu présenter au Maroc may représenter le réseau au Maroc. également avec ma représentant réseau rapide au niveau de Maroc mun madame Fouzia Tariq donc madame Fouzia dafa nekk dans le domaine de l'éducation man ma nekk dans le domaine de l'éducation de développement donc avec les collectivités locales maa ngi liggéey ak ñoom depuis à peu près vingt ans et toujours avec l'acte 3 de la décentralisation boo xam ne man maa ngi koy euh, def ak mairie depuis une vingtaine d'années ma accordé au maire benn visite bu nekk Pekes c'est la première fois ma ñëw dans le Kayor euh, ma ne ko dans le cadre suñu ba ñu réunion à à Paris ma ne ko dinaa jéem a ñëw euh, assister sa collectivité locale lu ma gën a surprendre maire bi waxuma man ma dimbali ma mais dafa may naan toujours jàppali sama jigéen ñi jàppali sama góor ñi loolu ma xaw ma surprendre tuuti parce que bu doon moom mënoon ne ne jàppali ma man ma def mais gis naa ni jigéen ñi ñoo ko gën a ñoo ko gën a firndeel donc tey ñu ñëw fii pour commencer ñu def benn pose de la première pierre au niveau du lycée ci lycée bi bañ ko defee mu nekk également ñu ñu wax que lycée d'excellence la donc dañu jéem a xool lu ñu mën a def mu gën a gaawee xam nañu que dafa manqué trois trois classes salle de classe loolu métti na trop donc déjà ak le minimum ñu ngi siy jàng donc dañu jéem a andi suñu appui si côté salle de classe yi beneen bi ñu xool tamit euh, jigéen ñi semaine passée ñu ngi jógee côté Casamance. Sédhiou zone de Sédhiou ak Kolda lu jigéen yëpp di wax moom la defe naa waa fii di wax ñu am même difficulté donc difficulté boobu la ñuy jéem a def pour femmes ñu am si ñu bénéficier lu bénéficier waa Casamance waa Kayor également bénéficier y a les jeunes également souvent damay naan l'exode rural bi jeunes yi euh, rural bi Euh, les zones de, du monde rural dañu jógee zone yi di dem au niveau de Dakar vous avez vu que Dakar dafa saturé donc bu ñu jéemee def benn appui boo xam ne considérable au niveau des jeunes te man am naa ko xam naa appui boobu duñ ko mën def parce que maa ngi siy liggéey bu baax avec les jeunes surtout maa ngi liggéey ak euh, benn projet bu baax boo xam ne mu ngi nekk au niveau de la ville de Lyon Lyon laa nekk fa laa jànge donc bu ñu wonee benn exemple te def naa exemple boobu koy commencer ak Pekes Pekes ñu def ak les jeunes leen apporter benn petite contribution boo xam ne jeunes yi dañ si mun jàng liggéey si di gagné xaalis surtout man également dama nekk benn dans le je fais partie euh, des femmes euh, chefs d'entreprise mondiale donc am na xam-xam si côté boobu di wan yoon bi di accompagner les femmes donc looloo waral tey ma ñëw au niveau de Pekes di liggéey ak maire. donc dama bëgg tey waxtaan ak jigéen ñi c'est des projets d'incubateur incubateur incubateur incubateur laa bëgg a wax ak femmes le maire wax na ko tout à l'heure jigéen ñëpp dañuy bor. jigéen ñëpp dañuy dem au niveau des banque di fay ñoom ñëpp ku nekk da ngay fay am ay problème soxlawul dinaa wax tout à benn projet boo xam ne avec les femmes nga xam ne entre ñoom de façon région d'Afrique loolu lay def ñoom mën nañu fayal seen bopp mën nañu liggéeyal seen bopp di gagné seen bopp xaalis dinaa si wax tout à l'heure maa ngi tudd Fatou Bintou Diop nekk conseiller nekk présidente jigéeni commune Pekes nekk présidente maison familiale daal de Pekes. waaw tey jii jigéenu Pekes li ñuy wax jafe-jafe dëgg ci jigéen ñi lan moo nekk seen jafe-jafe. jigéen ñi commune Pekes lii seen jafe-jafe bari na boo ko dee xool boo defee benn nattukaay rek ci commune Pekes jafe-jafe bi da koy gis parce que commune Pekes dafa ëmb dëkk yu bari ndax mi ngi ëmb na 71 villages jigéen ñi am nañ jafe-jafe xaalis bu doy bu ñuy liggéey. am nañ jafe-jafe li nga xam ne yàlla dénk nañ ko muy suuf di intérêt di walooru doomu aadama am nañ ko mais am nañ jafe-jafe matériel bu doy ak moyen bu doy pour nu utiliser ko noog sunu njaboot jëfandikoo ko. Euh, ci lan ngeen xalaat ne bu leen ko financé jigéen ñi euh, maanaam dina di ngeen ci mën a liggéey. ci xaalis ah, loolu de pour xalaat ko dina jafe ndax dina jafe ci ñetti mbir. boo xoolee jigéen ñi ñu ngi yëngu doon yëngu lu bari ci wàllu maraîchage biñ demee ba di ci yëngutu def ci ay résultats yu baax waaye dañoo dem ba xool ni ndox mi biñ defee suñ situation ndox mi seer na te nu Pekes boo defee gëstu man nga fee génne lu war a mat ay juróom fukki teen pompe yoo xam ne ñu ngi fi ndox mi doy na mais lu ko génne ba ñu mën ko exploité di ci di ci bayin mbayum noor moonu jafe nekk na benn jafe-jafe boo xam ne ak njëriñ loo xam ne buñ ñu jàppale woon teeni pompe yi nekk ci commune Pekes ñu jàppale nu def ci def ci ay forage wala piti forage suñu doom di ci liggéey nu ànd ak ñoom dina nekk jàppale boo xam ne bu nu gis beneen jàppale bi ci des ku nekk xam na ne suuf ku ko am ñàkkoo dara te gis ngeen ni suñu doom ñu ngi ànd jóg di dem di marché ambulant ci taaxi marché ambulant metti na jafe-jafe bu nekk a ngi ci suñuy doom ñu ngi jël risque di dugg ci gaali mu metti ni lool kon su fekkee jàppale nañu ci loo xam ne matériel la ak xaalis bu doy defaral nu sunu teen yi ba mu doy ñu sunuy doom dellu si ci sunu wet nu ànd ak ñoom liggéey Sénégal jëm kanam sunu commune suqaliku dina doon loo xam ne lu nu amal njëriñ lool. ci lu mbay mbay lu mënul amul man de en tant que jigéen di nji di femme jiite ay jigéen dama naan Sénégal tant que organisé wunu ba mbay mi suqaliku leen coow li day bari mais duñ dem fenn. te ku ni mbay mënut a suqali Sénégal day wax rek gëdd bi war ci mbay buñ ko defee Sénégal diirum ñetti at ñeenti at Sénégal dina nekk ca kanam lii moom noonu la ko wax nun femme rurale Pekes. est-ce yëpp mos nañoo gëstu wax dëgg yàlla boo xoolee sama samay at li ma ci fekke doon nañ def waaye boo xoolee liñ doon def daanaka danga naan Pekes gisu ci boppam liñ fi doon def akus néew boo ko xoolee dafay mel ni ci Pekes benn toqum ndox ci géej. parce que du ko feeñ parce que njiit yi fi jaar bu fekk ni def nañ li ñu war a def dëgg ci Pekes kon Pekes développé ma jox la beneen exemple rek ci loolu njiit yi fi jaar ba jàll ak même yi nekk nii gisagoo Pekes am député amagul ministre amagul sénateur te pourtant Pekes mooy xolub Kajoor bu ñuy wax Sénégal Kajoor a tax te Pekes mooy xolub Kajoor te loolu war yaakaar naa war na noo toll nag ci jamono yoo xam ne war naa mën a ñàkk. fo a ngi daw sunu jigéen yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi. nekk à la base mobilisé wu bapare pare toog amuñu lu leen indi parce que oto yaa ngi roñ ba heure bii mënuñoo fexe ba ñëpp ñëw defe naa kon Djibo Mbaye ak jigéen ñi mu àndal ay conseil ak man en tant que présidente groupement defe naa nun Macky Sall war na noo gëstu bu baax xàmmee ñiy wax ak ñiy jëf nun danoo am jëfukaay boo xam ne nun ñu ànd ak Djibo Mbaye doo passé na ay nax defe naa bu ngeen xooleet biir base bi ca suba ba léegi ay chef de village ay chef de relise ay présidente groupement sol ñu déplacé wuñ dérancé wuñu gëm nañu suñu bopp gëm nañ Djibo Mbaye gëm nañ ni Djibo Mbaye ku ko jox gëddaam li ñu bëgg ci Kajoor dinañ ko am waxuma ko commune Pekes mais dama naan région Thiès ak département Tivaouane bu fekkee dooleel nañ ñu nun jigéen ñi commune Pekes ak suñu meer Macky Sall lu mu bëgg ci département bi ak région bi dina ko am